lii ñuy ñaan di ñaan ngërëm loolu am nga ko ba noppi ndax gannaaw sëriñ bi moo wax ne yaa ngi ci fi nga war a ne di def li nga war a def te di ñépp xam nañ ne góor ak jigéen mag ak ndaw ku xam xam na ne liggéeyab sëñ Tuubaa bi yëmali woo koog ñi ne ñi la jege walla ñi jege yoon wi te bokk ci xam nañ sab taxawaay bu wér a képp ku yàlla may xolob gis ak xelam gis ak i bët lu ne li sëriñ Abdoulaye waxoon lu ne fàng la jarul wan ko ami bët ndax ni ko gisee la koy gisee te ku amuli bët jarul wax ma nga ne ndax boo ko ko wanee du ko gis sëriñ bi nag yónni woon ma ci yow muy sëriñ Sidi Abdoulaye ci bis bi jox ma teraanga ji ne naa ñëw teg ko ci sa loxo mu mu barkeeloo ko ci bisu sëriñ Abdou Khadir bi te di la mu di la xamal ne mi ngi lay sant. mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal ci barke Serigne yàlla may la sëg bëgg ndax ku xam na fi nga ko teg xam na ni nga ko jàppee gis na ni ngay doxe te ñeewante ci lool lool lool su manoon lépp loo yëkkati yaa moom saa boo geesoo da nga ko gis ci sa kanam ak ci sa gannaaw waaye na la wóor ne sa kan mi ngi ci sa kanam mi ngi ci sa gannaaw di di la ñaanal yàlla guddal sa fante wéral say ceeb loolu la sëriñ bi wax léegi nag ñun suñu addiyee bopp la di ñoo barkeeloo ci bis bi di la ñaanal rek di la feddalee li ma la wax rek suñu taalibe ak suñ kóllëre ma di la ñaanal yàlla guddal saw fan te wéral say cër ba yéene ji nga bëgg defal ci yoonu sëñ Tuubaa fu ma toll ne maa ngi lay xool rek li ma wax sëriñ bi joxoñab sëriñ Tuubaa nga sëñ la ñuy xool ci yow lu dul ay taalibe ñoo doon lu dul ay taalibe nit nag du judd ci mbir fekk maamam ne ci ànd ak baayam ànd ak doomi sëñ Tuubaa yi ñu ñëw ànd ak yow bëgg doon leneen lu dul taalibe wala ñu wan la lu dul taalibe su ñoo ngi lay ñaan suñu suñu mata di maye it nga matal ñoom yor matak sëñ Tuubaa gi ba xool ne ay taalibe rek lañ donte dañoo doon def lu baax juum bëgg a def leneen na nga xam ne taalibe sëñ Tuubaa lañ yu bëgg sëñ Tuubaa tey ba tey topp sëñ Tuubaa tey xool sëñ Tuubaa ci yow wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. mu ne Serigne Abdou Lahad. ñu ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ñëpp. nee na mi ngi lay nuyu yaag ñi nga àndal ñëpp. di ci di Serigne Bassirou si. di ci teg Serigne Bassirou si. mi nga àndal. mi nga àndal. ak mboolem ñi nga àndal ñëpp. ak mboolem ñi nga àndal ñëpp. bàyyi ci sunu kilifa. ngeen bàyyi ko nag ci kilifaam. di sunu mag. di seen di magam. di Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad. di Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad. xam naa waxaat rek lay doon. nee na xam na ne waxaat rek lay doon. ndax naga ni daaw fii lañ taxawoon. ndax naga ni daaw fii lañ taxawoon. wax kàddu yi. wax kàddu yi. te loolu. màggalu sëñ Abdou Khadir gu jot. màggalu sëñ Abdou Khadir gu jot. mu yëkkati teraanga ju rëy. mu yëkkati teraanga ju rëy. joo xam ne bu àggsee. yoo xam ne bu agsee ñëpp dañuy xam ne yéene la ko defee ñëpp danañ xam ne teraanga ji ka ko def yéene la ko defee te loolu waru ko ci suñ digg ak moom te nee loolu waru ko ci diggam ak moom ndax mooy suñ kilifa ndax nee na mooy kilifaam ñoo war di yëkkati addiye di ko jox ñoo war di yëkkati addiye di ko jox waaye bu lim si jublu waaye moom lim ci jublu wane ak yëg wane rek ak yëg ndax moom noonu la ko yàlla binde ndax noonu yàlla binde sëñ Sidi da koo jël ci waajuram da ca rek. du ca nekkantu. du ca nekkantu. da cay dugg. da cay dugg. wala mu génn ca. wala mu génn ca. kon nag ñu ngi koy sant. kon nee na mi ngi koy sant. ndax ginnaaw bu mu doonee suñ kilifa. ndax ginnaaw bu yàlla dogalee mu doon kilifaam ba noppi. fa mu ñu war a féete ci kilifteef. fépp foo xam ne war na ko faa féete ci kilifteef. bañ ko xamee ba nëgëni. ba na ko xamee ba nëgëni. deselu ci dara. deselu ca loola dara. maa ngi fàttaliku 2013. nee na mi ngi fàttaliku ci atum 2013. mu wax ma wax ju wax ko wax ju te dama koy fàttali. te da koy boo def maa wax ne ma. booba da koo wax ne ko. xaw ma kan de. xaw ma kan de. waaye maag Cheikh. waaye maag Cheikh. muy suñu Cheikh am suñu Saliou. ñun ñaar de balaa dara ak si sa kaw. ñun ñaar de balaa dara ak si sa kaw. dana jaar suñ kaw jàll. dana jaar ci suñ kaw jàll ba noppi. loolu nag yëg nañ ko bu baax. nee na loolu moom yëg na ko bu baax a baax. da koy dundak koy dund ak man wu ne. te waxtu ne da koy dund ak moom. Euh, sëñ Abdou Lahad ka mii. dañoo am kóllëre gu yàgg. dañoo am kóllëre gu yàgg. goo xam ne Serigne Mahmoudan goo xam ne Serigne Mahmoudan moo ko njëkk andi ci man moo ko njëkk andi ci moom loolu jiitu na sax ñuy seq liggéey bi nee loolu jiitu na sax ñuy seq liggéey bi ba yàlla def ñu seq liggéey bi rek ba yàlla dogal ñu seq liggéey bi teraanga ji ba mu ko tàmbalee def moom teraanga ji ba mu ko tàmbalee moom booba jiitu na booba jiitu na loolu ba liggéey bi agsi ba liggéey bi agsi Serigne Sidi Serigne Sidi yëkkati loxoom yëkkati loxoom yëkkati sama loxo yëkkati loxoom Serigne Cheikh Bass boole boole leen ñoom ñaar ne dama bëgg ngeen ne dama bëgg laa ndax yéen ñaar rek laa am. loolu nag sàmm loolu nag sëñ Ablaat sàmm na ko. jàpp na ko jàpp na ko. ndax jàpp na kóllëre gi. ndax jàpp na kóllëre gi. jàpp na taalibe gi. jàpp na taalibe gi. jàpp na cofeel na itam cofeel gi. kon nee na mi ngi lay sant bu baax. ndax damay seere ne. ndax day seere ne. liggéey bii mu seq ak moom. liggéey bii mu seq ak yow. 2010 ba léegi. 2010 ba léegi. wala 2009. wala 2009. ba léegi. ba léegi. mosuñ cee juyoo. mosu leen cee juyoo. mosuma ko cee sant it lu mu def. mosu la cee sant it loo defut. loolu moom xam naa ko. nee na loolu moom xam na ko. waxtu wu ne it mu ngi dàkk. waxtu wu ne it yaa ngi dàkk. sama bëgg. ak bëggam di ko def. kon nag ñu ngi koy ñaanal. kon nag nee na mi ngi lay ñaanal. ci barkeb sëñ Touba. yàlla na ko sëñ Touba fay. yàlla na la sëñ Touba fay. barkeelal la liggéey bi. barkeelal la liggéey bi. musal la fi.